alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ca gën fës suñu lamb mu ñu xamal ne ngi ci jeudi bu am solo combat yu nar a neex diggante ambulance ak Garga 2 diggante Modou Dia ak ki nga xam te ni moo di Dame Sène ak ñoom Liss Ndiago waaye suñu lamb mu ñu xamal ne journée boobe à partir de 18 heures ci lay commencé suñu gaynde yi ñu teewaloon ca jeu de la francophonie ñibbisi nañ suñu lamb mu ñu xamal ne indaale lu toll ci treize médailles ci treize médailles yooyee six ya mooy or deux argent ak cinq bronze ñi nga xam se ni ñooy suñu gaynde yi ci wàllum lamb te ordinateur jiite ko ak ñoom Tony Junior suñu làmb mu ñu xamal sagal nañ ñu ca Congo ga ñu demoon ndax wane nañ fa seen bopp niki démb lañ yegg si fii ci diwaanu Ndakaaru kii nga xam si ni moo di Reug Reug suñu làmb mu ñu xamal ne wàllum MMA tamit ma ngi cee wane boppam bu baax a baax ginnaaw ndam li nga xam si ni am na ko am na bonus buñ ko ca tegal bu toll ci 30 millions ki nga xam si ni moo di artiste bii di Maabo moo ngi koy félicité bu baax a baax ci ndam li mu am ñeneen ñuñ félicité wul nar a ak ñoom ci yoon ce yoonu CNG mooy ki nga xam si ni moo di Zambala ak Blende ménage yi leen tëgloo tëggoon ña ngay dem ci CNG ah. ngir kalaame leen ngir ñu leen a teg ci yoon ndaxte bëréewuñu ñu bi ña ngay ñaan ñu mën a teg ay sanction seen kaw ki nga xam si ni moo di ndem si yàlla si Mbaye Guèye le tigre de Fass génn àdduna bi muy am soixante-quinze ans suñu làmb mu ñu xamal ne anniversaire bi mu génnoon àdduna delsi na toll na ci ñaari at ñu koy ñaanalaat bu baax a baax suuf oyof ci kawam kii di laay birusili doomu kër Mbay faal bi suñu làmb mu ñu xamal ne suba ci mercredi ci lay amal li nga xam si ni moo di open press ca kër Mbay Fall combat Ousmane ak ki nga xam se ni moo di Abdou Gueye bi ñu puusoon ndax coow li amoon jàppaat nañ ko le 16 août ci lañ koy amal ci arène nationale ñëw ci beneen combat bu ñuy amal le 15 août mu nar a nekk combat bu neex diggante Tigre Junior ak ki nga xam se ni moo di Boy Niang suñu làmb mu ñu xamal ne waa Leewtoo production ñoo koy amal mu nar a nekk combat bu rëy kii di Gaskel Jàmme suñu làmb mu ñu xamal ne bi mooy deuxième gala boo xam ne jël na ko ci saison bi foofee nga xam se ni moo di adresse Senghor làmb ji passé dimanche tegoon moom moo ko jël kii di Zal confiance borom Jurbel suñu làmb mu ñu xamale ma ngay waajal samedi làmb jëmuy tëgg diggante Zal Bambay ak Boy Nar Fall moom la ñu invité woon niki démb ci émission làmb jooju doon am ca DTV suñu làmb mu ñu xamal ne kii di Caatu Mbomboy day open press niki tey jii ca diwaanu Médina fa la koy amalee à partir de 17h keneen koo xam si ni tamit dafa nekk ci li nga xam si ni mooy wàccaayu open press bokk na ci adversaire am bi di Petit Baye Fall numéro 2 suñu làmb mu ñu xamal ne suba lay amal open press am foofee moom it ca diwaanu Tëngéej fa lay waajee li nga xam se ni moo di open press am beneen combat ngi bu ñuy waaj ci saison bi ñu jëm muy combat espoir combat de choc diggante doomu jàmbur ak serpent noir suñu la mu ñu xamal waa Mbousnakh production ñoo tëgg boobule combat combat boobee ñu ngi ko bëgg amal ci début saison bi rawat na ci mois bii di mois de novembre ci lañ ko bëgg a tëgg ndax ñu teel a yeeyu mbëri ñu mën a wuti leneen mu nekk combat bu gaay di xaar bu ñuy waxtaanee ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki suba incha allah.